What was this for? man bu bëggee làmb moom bi ma bëgg ko ci làmb laa daan àndal mu naan ma comme que day entraîné boo entraîné lu la neex dañ koy doy moom mii sama rakk ma bokkal moo tax may contact euh, rakkam garga maag moom kii moom bokk na ci ñi ma jàngal métier tafa dafa am léegi daal maa ngi moom ay doon dox oto may liggéey. ku mu bokkal benn nday ak baay ñu koy wax baraam. kon ñii maa ngi am ay frères lañ quoi mais ba gannaaw yàlla ak yoon bi bi ma ma sant samay waajur sant waa parcelle un ba vingt six di sant ñi nekk ñëpp waa doole waa ECHO di sant ñi nga xam ne suñu dëkkandoo lañu ñi jënd kër ñi ñëpp ñuy sant Diatta ñoom Aliou Diop bàyyiwuma kenn ñi fi dugg ñëpp ñoom Kalidou bàyyiwuma kenn waa Intercat di sant nag waa sama koñ kees su néew meer waa jàkkaarloo xam nga ñoo ko yor. dëgg la dëgg la waaw kees su néew day ñëw mais day ñëw Calcio booy Calcio dem la. yaa ngi dégg mais euh, tey jii nii parcelle ñun dañoo war a sàcc baax dof bi parce que tey jii nii lamb mënoo ko wax ci parcelle bi doo ko wax. yaa ngi dégg loolu si dafa dem xeex lu bëri ñëw indi ko man lépp si la moom fekk man lamb nekkul ni loo xam ci comme dama tëb tëb rek dugg lamb man Moussa Gueye. suñu papa moo ko daan yóbbu fu ne di koy wutali gàllaaj daawaa ngi fi boo ko laajee moo xam moo ñu yar comme ñu ngi naan xale ndaw maa ngi koy fàttali ko yaa ngi dégg parce que boobu laa daan gis moom muy lekk boolu ceeb maanaam nit na la mën a jeexal boolu ceeb waaw di jeexal boolu ceeb mu ni kon sam waxal ci combat bi waay léegi nag waxal ci combat waxal ci combat bi waaw dégg nga sos leen wax mu mel ne sas bi yéen bi diis na waa parcelle ñëpp a ngi sa ginnaaw wax di la boosté ngir nga am ndam ci kaw bu ne nag ku ko xam xam ne day xeex Fall man Sénégal mel man maa ngi def nit mu def di dem stade yóbbaale loxo bu tamu kenn mos ko fay def booy bi moom ngëmboon di sant bu baax nag làmb ko bàyyi woon ba ma demee ba teel ci tey i moo ci indi muy pël bu rafet mii ma indi ci làmb moom bàyyi woon naa làmb di def def yeneen moom moo ma fekk Gambie ni ma ñëw ma dëggal a combat ma ci guy bi ak Mambala bi ñu bëri xam nga doomu aadama olof yaa def ne bu bu bu la déggee la alors na ko gërëmee na ko gërëmee ba pare ma tuddee ko doom kon nag moom maa ngi moom ni ñu boole pare moom lu tax wax loolu sama yaay la sama lépp la te dara waxal ci combat bi sa digganteeg pël sa digganteeg pël wuy ma kalsum kalsum ma ne sa digganteeg pël ku ne xam na ko. waaw mais da nga am wuy ma wuy ma wuy ma. Zoss neen fii ay comédien ne fi ay mbërë fi ne. mais dama bëgg nga wax ci combat bi jàkkaarloo Wouly wax ak moom. da nga bàyyi ngay wax waxala Wouly. xanaa gisoo sama cicatrice bi. cicatrice bi contact dama ko jox. lu la def xoolal cicatrice bi ngay gis ni sama nopp yëpp dafa yàqu ndax ay contact bu dee ay dóor jëru may wax parce que sama rakk ji nekk muy daado mu sonn ci ñun di suñu coach daado mii di suñu rakk di suñu coach Gàmbi laa nekk mu may woo ñëwal ñëwal ba mu ñëw mu may teg keroog ba ma jógee Gàmbi ca ba damaa ñëw écrit ba contact di ànd ak ñoom Boy Faye avant may dem Esat dama doon ànd ak Boy Faye di xëy man ak moom ak ñuy yeew di dem di entraîner. waxal ak wulli waxal ak wulli lamb di la 11 soreetul gis nga diggante bi wax li may wax am ko la 11 incha allah nga am nga li ngay wax kay. ngay ngay teg ko wax dama ni bu soobee suñu la 11 waa parcelle dinañ kontaan. le 11 incha allah waa parcelle dinañ kontaan bu neexee yàlla loolu man maa yow boo gisee nga xam ni fi mu toll nii tey jii mbër mee ñëw. li bi moo ñëw. waaw dégg nga yow xanaa dégg nga yow wul lii rajo moom mooy moom xam na bu naa la xeexal naa ko xeex boo xam si Gambie 1965 ba année bi ma fa jugee nit mos koo xeexal moom xam na ay neef yi di wax dimanche am na ñaari fan ci des bu soobee suñu borom incha allah dimanche vampire bi dana ko lekk. nooy def foofu bàyyi ma yem di ñaanal booy bi nga xam ni. waxal sa sa combat. non mais dama koy ñaanal waxal sa combat ba pare. sama combat la on dégg li ma leen bu soobee suñu borom lan ngay def wuli. wax baaxul. non da ngay wax ak moom. jàkkaarloo wuli nga wax ak moom. dinaa ko lekk da ngay lekk waaw. koy lekk dinaa ko warax. koy warax koo koy warax. dinaa ko yëy koy yëy. wuli dafa mel ne yemoo. yow ñaata yoon naa la mën la dinaa ko wan. doo xool déedéet wala da ngaa a wan moo xam ne ko war a wala ko mujj muy ma am na ñoo xam ne dañuy ñaanal da leen di sant. di sant ama sama boy bi nga ko sonn ci mat di sant mbëri bi ñoom daam seen bàyyi seen lépp euh, ñoom Bogal production Garga 2 ak sama ñoom Gung Lao bàyyi ma kenn waa Passane ak suñu booy yi nekk ñoom bébé Garga ma booy Giro parce que il faut ñu sant suñu booy bi ne mais lépp dañ ko jël dafa a njëkkee Ramadan fii la defee lépp na ko yàlla yorom di ñaan suñu rek Kalidou tey li am fii lépp moom la duñ ko mos a bàyyi di ñaan sama rek yi ne fi ñoom Moussa Ndiaye ñoom euh, Laye Sabali ñoom booy fi nekk nii ñëpp bàyyi ma kenn ñoom Fallou mu ne doom ñoom Issa autorité yi ne fi nañu may biir parce que amuñu ay biir. jërëjëf te fii autorité yi ne fi nekk waaw. jaaj jaaj xam ne moo ma defaral lii sant naa ko baax gërëm ko dama ko defaral. joxuñu ko dara bàyyi ma kenn nag parcelle un ba vingt six sama boy nekk ñoom Ousmane Ndiaye sama rakk combat bi nag sa combat la carré carré bi defaluñ ko dara kii day bàyyi non dañuy wax parce que kii defaluñ ko dara day bàyyi liggéeyam bi ñëw di ànd ak ñun kon moom doomaara da ngay sant ki nga xam ne son ko bi lay woo waaw te nag di wax ni parcelle bi nekk ñëpp ñun ñun dëgg ko fii nañ fay di grand sos mooy suñu lépp bu neexee moom la bu naqaree moom la. waaw kon boog nañ féete ginnaawam. am na solo wax ji. am na solo du sant nag sama sëriñ yëpp. sama sëriñ yëpp. képp ku may ñaan. waaw sama kilifa yoo xam si seen i bàyyi ca bal am nga problème mais Babacar di sant Modou Badji maa ngi koy sant di sant Serigne Amsa Faye non ñu ngi ñaanal dama leen di sant waaw ñoom Serigne Badji Casamance kooba ñoom Modou Badji Casamance kooba bàyyi ma kenn ak seen waa kër ñoom Moussa Fall Badji ñoom Amsa bàyyi ma kenn incha allah rabbi